Euh, premier ministre Ousmane Sonko euh, euh, mu war koo fas yéene def du yàgg dara devant l'Assemblée nationale si je ma me trompe waaye risque-t-il li nga xamante ne mooy motion de censure ci yow la ñuy njëkkee Omar. waaw déclaration de politique générale boo xoolee temps yëpp ñoo ngi koy wax. mais euh, Ousmane Sonko sax ba euh, jamono jee ba muy accueillir euh, jeunesse patriotique bi doon def conférence publique bi moom moo ngi doon wax ni déclaration de politique générale bi daanaka pare na moo ngi koy waajal bon d'après sax ce qu'on m'avait di ministre bu nekk joxoon nga ko sa input bon par rapport ak ñoom seen projet nga xam déclaration de politique générale boo xam da nga koy def mu méngoog ñoom nu ñu bëggee waa mooy definir projet bi mu méngoog ni ñu bëggee kii réew mi nag déclaration de politique générale boobu ñoo ngi koy xaar parce que dañ ne normalement c'est après euh, warul dépasser les trois mois waaw am warul dépasser les trois mois bi nga xam ne nii nommé nañ le le premier ministre euh, léegi nag bon Ousmane Sonko moom ñoo ngi ko nommé au mois d' avril bu ma jumul le 5 avril mai juin juillet boo xoolee mois de juillet bi trois mois yi day kii léegi nag est ce que da koy def si délai trois mois yooyu. Euh, loolu sa ça reste à voir parce que assemblée bi bu ma juumul assemblée au mois de juin bi euh, normalement assemblée dafa war a tëj parce que assemblée dafa am day am ay session am période boo xam ne day tëj mais mën na am session extraordinaire maanaam euh, moom mën na euh, def déclaration de politique général bëgg a def déclaration de politique générale ñu convoqué session extraordinaire boo xam ne ni dina tax tey jii nii député yi ñëwaat loolu dina war a neex de. waaw problème bi loolu la léegi problème bi mooy. Ah. actuellement est-ce que les députés. Ah. Euh, Ousmane Sonko bu ñëwee def déclaration de politique générale. est-ce que ñoom est-ce que ñoom dinañ ko tàcc au la main wala ñoom ils vont déposer une motion de censure euh, léegi nag. motion de censure ndax du doon sabotage kon. ah mais tamit ça ça dépend pour la politique xam nga tey jii xam nga xam nga tey jii euh, motion de censure mm. euh, tey jii bu ñu demee ba koy déposer mooy ñoom d'accord ñu premier ministre gis nañ ni premier ministre bii daal mm. moom daal dalul seen xel xam nga loolu moom député yi am nañ ci droit ñu def dek euh, ñu def motion de censure te actuellement boo xoolee Pastef ils sont minoritaires à l'Assemblée nationale ils n'ont que vingt cinq députés léegi nag Pastef ak PUR est-ce que déggoo nañ doon déggoo woon déggoo démb est-ce que ba léegi looloo xew est-ce que Pastef ak taxawu Sénégal ñoo ngi déggoo ba léegi est-ce que Pastef ak PDS dinañ déggoo si loolu est-ce que est-ce que est-ce que donc euh, y a autant de paramètres yoo xam ne tey ji mën na tax ñu xalaat ni déclaration de politique générale bi peut-être Ousmane Sonko bu demee foofu mën na risquer motion de censure léegi nag moo euh, ñoom ils ont la possibilité tey ji dissoudre Assemblée nationale mais pour nga dissoudre Assemblée nationale foog mu ñu xaar ba mois de septembre te mois de septembre balaa moo jot déclaration de politique générale bi waaw dafa war am léegi nag maa ngi lire ci benn journal Les Échos ñu ne euh, depuis xaw ma 2019 ci code inter ci code euh, règlement intérieur assemblée nationale mm. euh, déclaration de politique générale ne plus obligatoire je sais pas nag mais loolu moom ça reste à vérifier mais daal ju ah, man li ma si jotoon xam daal mooy déclaration de politique générale moom war nañ ko def de ci trois mois yi bu fekkee ni assemblée seen session tëj na mën nañ convoquer session extraordinaire pour ñëw def ko. Serigne euh, risque ci li nga xamante ni mooy motion de censure si jamais mu teg euh, plan de travail e bu ko dej bu fekkente ni loolu am na itam euh, ndax ce sera pas juste de la politique parce que cette assemblée la dañu waxante dëgg rek Ousmane Sonko mënut faa def kenn les yeux doux parce que minoritaire la fa ci wàllum Pastef seen diggante ak pure ñoo ngi seet digganteem ak waa taxawu loolu moom c'est mort on va dire euh, yeewi askan wi daanaka ñooñu la woon te instant bi ku nekk dem nga euh, gobar gobari sa sa toolu papa bi kii bi jotee bi bi bi élection yi jotee alors aujourd'hui Ousmane Sonko face à cette assemblée boo xamante ne 100 pour cent yi yépp boo dee seet c'est euh, de Benno Bokk Yaakaar mm. ndax dina ko dimbali ci liggéey bi mu bëgg a song waaw xam naa ni moom euh, dina neex parce que tout simplement motion de censure boobu temps yii boo gisee agité woon na l' espace public. Oui. parce que tout simplement bi ñu annoncé euh, ni euh, Ousmane Sonko dina def déclaration politique générale am. defe naa am na membre si je ne me trompe pas c' était Abdou mhm. defe naa moom la woon a. Ah. Mhm. bu waxoon ni boo mutul daañu dugal motion de censure ba defe naa après Saleh moo génn taal di tontu indi réplique par rapport à ça. Mhm. donc jàpp naa ne xam nga motion de censure comme mooy li Omar wax léegi loolu moom kenn du ko nangul euh, député yi am nañ sañ-sañ bi parce que c'est un moyen de pression bu nga xamante ça existe véritablement dans tous les régimes démocratiques mm-hmm. comme ni nga xamante ni noonu la dissolution de l'Assemblée nationale nekkee un moyen de pression également mm-hmm. bu exécutif bi mën a exercer sur les députés mm-hmm. pour dissoudre assemblée nationale donc lu même moyen de pression boobu aussi dafa nekk ab cër bu ñu jox député yi bu fekkee ni jàpp nañu ni lii nga xamante ni moom la ministre bi indi ci assemblée nationale ça ne va pas dans l'intérêt du peuple sénégalais ñu dugal une motion de censure donc nag loolu ça révèle de véritablement du patriotisme mais assemblée nationale la fay xew ñëpp xam nañ du patriotisme quand même c'est de la politique mooy li nga wax léegi te jàpp naa ne fa ñu jëm bonne guerre lay doon dañ naan lii la ñu lebal lii la koy fay foofu moom dootul nekk kenn dootul ku nekk fan la ngay calculer mooy de questions politique ca na ma jàppee parce que déjà ñi nga xam dañoo féete ñenn ci opposition wane nañ déjà seen posture ñoom moom déjà xamaguñ sax le premier ministre di indi waaye ñoom wane nañ déjà seen désaccord te pourtant xamaguñ la muy indi kon jàpp naa ni politique lañ gën a sax non politique dañuy politique parce que ñoom mm-hmm. dans leurs esprits déjà dañ naan lam ñu lebal moom la ñuy fay même ñi nga xamante ni sax mm-hmm. déjà ci opposition bi jéematuñu xool lu baax ak lu bon ñoom la mu leen lebal démb ak na mu taxawee woon démb rek dañ naan loolu lañ koy fay bu soobee yàlla. loolu nag dafa dafa dafa nekk si ñun. parce que am na benn benn premier ministre bu bu bu jotoon a dund loolu assemblée nationale ba motion de sance bi mujjul jàll. non non mujjul jàll kan na ko Ba dund na ko. Amadou Ba c'était Amadou Ba bu yàggul bi c'était Amadou Ba bii defe naa bu amee mooy troisième fois bi. mooy troisième fois bi non yàgg na am. waaw motion de censure même. Euh, dans euh, l'histoire du Sénégal dans l'histoire. oui Mamadou Dia sax motion de censure. lañ ko lañ ko jëlee woon assemblée donc. assemblée nationale conséquences après yu mu jub jur ci politique gu politique gu réew mi. Euh, véritablement euh, wax na dëgg boo remonter un peu vers l'histoire da ngay gis ni depuis euh, depuis Mamadou Dia et Senghor confusion bi amoon. am na ay conséquences yu mu jur. mais le plus important mooy li ma doon wax sànq rek. jàpp naa ni député yi nga xam ne dañoo fare ci opposition bi ci ñenn ñi. déjà ñoom wane nañ moom seen position moom mooy leer na daañ dugal motion de censure parce que dañoo pare. pour xeex ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk et te tamitam kenn du leen ko bañal parce que politique la c'est de bonne guerre la ñu labal démb dal la leen koy fay kenn mënu leen ko nangul donc nag man dama jàpp ni aujourd'hui aujourd'hui ñun ñëpp war nañu war a mën a bàyyi xel aussi ca lay njariñu réew mi parce que bu fekkee ni surtout ñoom ñooñu oui bu fekkee ni parce que député du n'importe qui du n'importe qui député dañ la tànn pour nga représenter tout un peuple bañ na ko ba sax député souvent dañuy wax ni du métier. Mm-hmm. député du fonction député c'est un mm-hmm. bu ñu la dénk pour nga exercer véritablement nga taxaw représenter dignement mm-hmm. le peuple sénégalais assemblée nationale nag bërëb la boo xamante ni fa la ñuy defaree am réew waaye fa la ñuy yàqee am réew ndax lépp lu ñu war a voter pour mu pour mu dem ci ëllëgu réew mi tey assises yi ñu jël bari na si loo xamante ni assemblée lay dem ña na koy voter ay député mais bu fekkee assises yi tey par exemple lañ ci proposé yëpp baax na dina am député yu ne baaxul loolu tam kenn du leen ko nangul mais daal kon jàpp naa ne aujourd'hui la nga xamante ni dana fa am débat bu am solo lay doon te et puis nouvelle configuration politique mën na am parce que politiciens yi aussi tamit bu ci kenn tax nga nga dóor sa doom de ñoom ñëpp mën nañ waxtaan négocier àndaat mu nga gisaat nouvelle configuration mhm. te gis nañ ko ci élection yi ñu gën gis nga ay ay ay ay parti politique wala ay mouvement yoo xam ku la waxoon ni ñii mhm. sur le plan idéologique daañu ànd doo ko gëm am na ñoo xamante ni mosuñu laalante te bokkuñu sax woon la ñuy wax mhm. mais pourtant ils se sont donc nag nouvelle configuration boobu mën na feeñ assemblée nationale mën nañ dem ba jàpp ni tey ñi xamante ni jubawuñu mhm. am problème problème mhm. ñoom waa Khalifa Sall ak ñooñu la ñuy am problème ak waa Pastef mën nañ dem ba assemblée nationale ñoom ñu adapté ci projet bi. te ñoom itam lu leen waaye a mën a waxal itam. lu leen waaye mën a waxal am nañ patriotisme. Mm-hmm. muy waa kër Khalifa Sall yooyu. voilà am nañ benn eh, benn benn. voilà am nañ benn culture politique. Mm-hmm. benn yar parce que doo leen dégg si lu bare itam loolu depuis parti parti parti socialiste jàpp naa ne loolu ñu hérité noonu. valeur bu am solo la. te jàpp naa ne bu ñu demee assemblée nationale lii nga xam premier ministre bu ko ëndee mu doy leen. kenn mënu leen tere ñu adopté projet boobu. loolu non man gëm naa ko si ñoom. ak picc yi ñuy lancante jamono non Khalifa moom dépassé na loolu. Ah. man de xaw ma ko nag mais xam naa ne. am na ñi nga xam ne nii. actuellement yaa amul ñoom ñoom gisuñu ni. Euh, war nañu mën a bañ a voté. lu baax lu baax non am actuellement. am na ñoo xam ne si tey tey si. te actuellement entre Pastef ay taxaw sax yaa ngi accalmie quoi depuis élection ba tey gisoo ku nekk dafa taxaw sur ses gardes. waaw depuis loolu amul. kon daal ñu xaar rek en tout cas premier ministre ñu ngi koy xaar itam moom itam na indi na fexe indi lu lu lu. convaincre wallaay te bañ ñoo wax ne des naag dañ koy yegg yeggaleeg dañ koy mottali na mat sëkk du dëkk mu matale sëkk xam nga nit tam boo bëggee ñu dimbali la da ngay dimbali sa bopp bu ko defee bu matalee ñëw teg rek am loo xamante ni dina ñu ko teg ci table bi ñun senegale yi ñu mën koo xool càmbar ko visite ko ña ñu taxawal toogal ci pencum ndaw réew mi yor sunuy kàddu xam ne lii lu am njëriñ la pour le Sénégal man nag ñi nga xamante ni dañ koy def ñu baal ma si kàddu bi comme gatsa gatsa bi